Fabrice Nguema pour sa revue de presse. presse vous l'aurez tout à l'heure à 12h dans le journal de Zik FM. Et sans plus tarder, nous allons directement, bien sûr, attaquer le commentaire actualité en Wolof, bien sûr. Et si vous voulez, nous allons même rejoindre Traffic News avant même de démarrer les commentaires. Traffic News, bonjour. Oh, bonjour, Yacine. Où est-ce que vous êtes Voilà, merci beaucoup. Nous sommes passés tout à l'heure au niveau du rond-point Casa Parcelles Assainies. Foofu amul jafe-jafe, ça circule tranquille, n'importe quel sens que vous voulez, mën ngeen di progresser, euh, sauf euh, ceux qui souhaitent de progresser sur la voie qui vous mène au niveau du rond-point Cambérène. Euh, foofu la dafa saturé complètement une longue file de voitures pour construire ce tracé. Par contre, ñi nga xam ne nag ñoo bëgg a jaaxee du côté croisement 22 jàpp police Parcelles Assainies vers la descente du pont. Euh, pareil pour les véhicules sortant du côté de la foire et euh, partant sur notre route Seydina Limamou Laye foofu la c'est complètement saturé des longues files attendre sur ce tracé donc laata rek ngeen a dépassé l'échangeur de l'émergence foofu la yéex na euh, vers la passerelle bu nëb su fekkee foofu la aussi ça circule tout doucement vers Mariama Niass Yacine. ayca dañuy daal di tàmbale ci pàcc mu euh, yees mi nga xamante ni euh, moo di euh, bu commentaire wolof bi dañuy daal di tàmbaleeg li nga xamante ni moo di l'audit du fichier électoral bi nga xamante ni yemb na ba tax na quatre liste des experts bi moom génne nañ ko fële ca cabinet wu ERA validation bi nag ki ko def moo di commission de suivi de dialogue politique ba nga xamante ni def nañ seen ndaje démb ba tax na experts yi ñoom nee nañu ils sont tous de nationalité étrangère. Euh, li nga xamante ni euh, loolu la waa parti démocratique euh, mu di parti démocratique sénégalais di dénoncer mu di PDS ñoom dañ doon exiger ñu bokk ci li nga xamante ni moo di experts yooyu la Birahim Touré. waaw mu mel ni kon caw caw li mooy cawal audit fichier électoral suñu waxee nag audit mooy càmbar li nga xam ne moom mooy fichier électoral am ñu ci bees am ñu ciy génn am ñoo xam ne dañ leen ci xoolaat ñaata nit ñoo war a voté fan la ñuy voté ak yooyu yëpp. muy ay laaj yoo xamee ni dañ koy samp xool fichier électoral bi bu fekkee ne euh, ndax ci ay jamono ñu ngi woon ci euh, lu xaw a jege euh, six millions ci wàllu ay électeurs wala mm-hmm. lu ko xaw a yées tuuti waaye du ñëppay dem voter léegi nag am na ñoo xamee ni yàlla def na peut-être ñu faatu ci diggante bi am na ñoo xamee ni euh, bindu nañu am nañu dix-huit ans euh, li nga xamee ni nag moom mooy euh, ñu am âge su mën a voter ak yu ni mel donc loolu yëpp dañ koy boole ci li nga xam ne moom mooy révision bu liste électorale waaye boo ko réviser ba noppi nag da ngay audité xool mhm. ndegam baax na ndax amul ay doublon ndax amul ñoo xamee ni dañ cee bokk te waruñu cee bokk mhm. donc loolu yëpp ci la ñu war a nekk léegi nag waa ERA ñoo ko yore ERA boobu nag cabinet la boo xamee ni euh, du ay doomu réewum Sénégal ñoo ci nekk looloo indi nag coow li waaye li ko indi tamit mooy ni dafa am benn commission boo xamee ni ñu ngi woon ci dialogue politique bi dañoo waxtaan seen biir ne ni muy parti politique opposition comme pouvoir ak société civile ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay non aligné ñu d'accord ne ni dañuy jël boobu boobule cabinet ngir mu yore wàllu audit officiel électoral ni nga ko waxee nag parti démocratique sénégalais nag moom comme bokkul woon ci waxtaan wi ñoom euh, bindoon nañu bataaxal ministre de l'intérieur ne ko dañ cee war a bokk ci bile audit. Mhm. wala au moins opposition représentative te bu ñu ko waxee tey muy assemblée nationale dañ naan PDS bu ñu waxee ci wàllu élection présidentielle dañ naan tamit euh, ni euh, PDS mënuñu ko ci génne. donte bokkuloon ci élection présidentielle yi ñu weesu donc foofu mooy coow li maintenant nag est-ce que dina am la mu soppi ci doxalinu nguur gi laaj la bu samp waaye yaakaaru yaakaaruma ni mën naa soppeegum en tout cas ndax. amul sax urgence su def ko actuellement nii. si si ba tey rek ñuy descendre. Mhm. audit du fichier électoral bi ñoom nee nañu opération bi euh, du lu nga xamante ni lu pertinent la li ki nga xamle nag moo di euh, Mon Ndiaye Mbaye. absolument absolument xam nga en général euh, chaque année chaque période électorale toujours dañuy génne fichier bi te am na benn récurrence buñ ciy waxee c'est même à se douter. Euh, de cette qualité de cette démocratie sénégalaise dont on vend tant parce que aujourd'hui la question fichier électoral war nañ ko mën a dépasser premièrement deuxièmement li waa PDS pour beaucoup plus de transparence je pense que état bi war na mën a nangu aussi euh, l'opposition dite significative war a mën a participer dans le processus même si bu fay nekkee sax à titre d'observateur hein parce que déjà euh, c'est pour ne pas craindre euh, demain à des perturbations à des manifestations du processus donc ñoom li ñuy laaj en réalité aayul Euh, dès lors que euh, joxe nañ euh, liggéey bi fële te loolu aussi lu ñuy xaw a jaaxal la parce que on a ici des experts dans le domaine électoral sur la matière électorale Euh, est-ce que mënuñu woon def benn système mix hybride jël les gens de l'extérieur ak les gens locaux pour ñu def benn genre équipe disons en ce moment on dans la logique d'une mission pour mën ko exploiter donc xaw na tey xel daal xaw na tey xel mais ça n'honore pas euh, la démocratie sénégalaise pour que temps bi affaire audit fichier bi di jël yëpp dans l'espace de débat politique parce que à na avis il y a beaucoup de sujets sur lesquels voilà on aurait pu débattre quoi que sur des opérations yoo xam ni c'est c'est vraiment technique quoi j'allais même dire basique mm-hmm. euh, justement audit du fichier nañoo am leneen lu gënoon a am importance. waaw xam nga Yacine aujourd'hui le le parti démocratique sénégalais se sent euh, frustré un parti frustré par rapport à cette situation pourquoi parce que tout simplement dañoo bindoon lettre faut pas faut pas l'oublier une lettre interpellatrice mhm. euh, bindu ko euh, le jëriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi le ministre de l'intérieur pour récuser justement ce groupe d'experts la comme quoi ñoom loolu ànduñu ci et maintenant il y a pas eu de retour ministère de l'intérieur euh, tontu leen ci lettre boobe moo tax ñoom encore une fois euh, le PDS parle de forfaiture comme quoi euh, ñoom mbir mi concerné wu leen et que seen yoon nekkul ci ci audit boobu nga xamante ne ni groupe d'experts boobu dina ko def comme ni ko Birame waxee mais li ñu li li ñu mën a wax ci audit bi mooy débat bi yàgg na yàgg nañu ci débat bi muy commencé tirer en longueur te loolu dafa am jeexital gi muy def mooy aujourd'hui ñaata yoon la ñu fi toog ne xamuñu kañ la dem échéance yi ñëw kañ lañ koy amal surtout élection locale yeeg ak yeneen échéance yi ñëw te loolu lépp également li ko waral mooy euh, audit fichier bi ñu bi mais il faut pas oublier aussi que fichier bi càkkutee fukk audit fichier bi yaa si am na ci benn pàcc ci opposition yi ko woon également parce que jàpp nañu ne euh, fichier bi euh, baaxul war nañ ko mën a gën a auditer euh, xam nga ba ñu échéance yi ñëw ñu ñu gën ko mën a waajal c'est pas parce que l'état moo bëgg rek wala le gouvernement wala président Macky Sall wala ak ñu mu àndal ñoo bëgg auditer fichier dañ koy auditer non c'était une demande bi nga xam te ni une partie de l'opposition daan na koon émettre pour ñu ñu ci loolu mooy euh, bu tiré en longueur et que kenn xamatul euh, mbir mi lu muy nuru dafay impacter ci calendrier républicain bi te aujourd'hui élection il faut que mu am voilà. ma nga noonu ayca ba tey rek dañuy wëyandi euh, ci commentaire ou actualité du jour ma tax na dañuy dem fële ca États-Unis ak inauguration wala investiture président Joe Biden bi nga xamante ni tey jii lay am donc ñuy xamalite ay manifestations pro Trump comme bi nga xam ne moo am keroog le janvier 2021 euh, loolu la ñu euh, ñooñu nga xamante ni ñoo di waa FBI di ñu xamle que loolu nekk na finalement lu sérieux loolu euh, ba tax na Joe Biden moom nee na li ko xa a jóg mooy que mu rassemble foofee nga xamante ni moo di États-Unis États-Unis ba nga xamante ni moom nee na dafa commencé woon di fracturer wu mu nekk lu doy waar on a quand même remarqué Birahim Touré que ki nga xamante ni moo di le président sortant mu di Donald Trump moom nee na du assister loolee ci investiture bi wala sax ci du ko fekkee du fekkee programme bi déjà démb la ko tàmbali que déjà euh, démb ci euh, vidéo bu mujj en tout cas bu ñu wane ci télévision bi lu mu njëkk a xam ne mooy ni euh, lii coow li mooy dañu ko dénkoon lenn def na lu mu ci mënoon ci liñ ko dénkoon muy présidence la république mais yamu ci euh, ci présidence su États-Unis boobu lañ ko dénkoon def na ba def lu jéggi woon euh, peut-être lu ñi ñi njortul woon ni dina ko def donc moom Donald Trump fi mu taxawoon fa la taxaw ba léegi moom dafa jàpp ni élection yi euh, dañu ko sàcc ni ñii di démocrates yi gagné ko waaye démb sax boo xoolee mm-hmm. kii di Joe Biden ci guddi gi en tout cas mm-hmm. bu ñu waxee démb mooy par rapport ak ñoom ci seen waxtu Euh, def na benn cérémonie hommage mhm. euh, aux quatre cent mille victimes du coronavirus foofu ci États-Unis d'Amérique mhm. euh, taxaw nag ci fi nga xam ne ni moom mooy ci mémorial seen président yu weesu woon taxaw ci li nga xam ne moom mooy bassin bi ñu taal fa lu tolloog quatre cent lampes yoo xam ne lépp pour soutenir wala fàttaliku quatre cent mille ñi nga xam ne ni ñoom ñoo faatu ci coronavirus loolu yëpp bokk ci programme am waaye ni nga ko waxee wàllug euh, fracture am na ci biir États-Unis parce que ci sondage yi nga xamante ni dañ ko joxe gis nañu ni euh, Donald Trump mi fay jóge ci xayma trent 38 pour cent américains yi ba léegi dañoo ànd ak ak moom. Mhm. ça veut dire donc euh, tey bu fekkee ni yeneen pourcentage yi ànd nañu ak démocratique yi ñenn ñi ñoom peut-être am na fu ñu féetewul li wóor mooy président bi fi nekk faw mu seet nu muy dajawaatee. Mhm. wala dajalewaat États-Unis parce que fracture bi c'est une candidature très profonde moo war a sax tey euh, mille personnes donc ñoom ñooy nekk ci cérémonie d'investiture bi mhm. te ñoom ñëpp ku ci nekk daa am carton d'invitation lu wër Capitole lu wër Washington ak mhm. toutes les capitales fédérales yu nekk foofu ci États-Unis mhm. daanaka dem ak dikk ci boppam dañ ko tere puisque la garde nationale ak police ak FBI les services secrets et ils ont mobilisé rien que pour le Capitole quelque Euh, soldat muy loo xamee ni amul Afghanistan amul Irak amul mhm. feneen mhm. ci euh, wàlluk sécurité en tout cas euh, Siré mel na ni que ki nga xamante ni moo di président actuel bu États-Unis mu di Joe Biden il a du mhm. pain sur la planche oui absolument tu xam nga depuis la guerre de sécession jamais l'Amérique n'a été aussi divisée euh, par une fracture d'abord raciale, il faut le dire, par une fracture sociale, par une fracture politique et même par une fracture économique. Et puis euh, li gën a inquiétant ci foofu mooy euh, Donald Trump mm comme ni ko Birahim waxee Euh, c'est 38 pour cent de l'électorat ça représente 72 millions d'Américains et que ñooñu pratiquement sont des radicaux mhm. et que gouvernance ou présidence su Joe Biden du yomba parce que contexte bu mu nekkee nii c'est un contexte assez difficile déjà euh, et que sanitaire bi euh, donc euh, effectivement il y a deux ou trois défis majeurs qui vont se dresser devant Joe Biden il y a d'abord le défi intérieur et que vu les positions des uns et des autres, euh, ça demandera du temps et ce sera extrêmement compliqué hein, pour mm -hmm. pouvoir euh, recoller les, les morceaux. Mm -hmm. Mais aussi Covid bi fi nekk mm. qui a impacté, impacté fortement l'économie américaine, mm-hmm. euh, l'économie euh, globale. Mm-hmm. Effectivement, le mot est juste pour dire que Joe Biden. En tout cas, on attend de lui que mu def lu nga xamante ni euh, Donald Trump defu ko fa parce que mm-hmm. ce matin rek maa lire mu que il vantait d'avoir véritablement Euh, monopoliser du moins téye ñi nga xamante ni moo di la Chine ñoo ko mhm. jaaxaloon. Mhm. Euh, euh, oui tu sais Yacine euh, Donald Trump dafa am mbetteel. foogal woon ne situation bi dina dina dina déroulé wu nii bu mu ñàkk élection yi mais quand il faut il faut noter que Donald Trump aujourd'hui soutien bu mu dafa am benn soutien pàcc ci américain yi nga xamante ne nii dañoo épouser vision am dañoo bëgg mhm. doxalinam. Mhm. dañoo dañoo dañoo bëgg li nga xamante ni moom lay moom lay doxee moom lay waxee moom lay jëfee moom lay gérer États-Unis une partie quand Euh, des américains ça aussi il faut que ñu nangul ko ko. Mhm. beneen bi mooy bu teewul ci investiture man gisuma ne am na lenn lu muy lu muy lu muy yàq wala lu muy lu muy kii ci ci investiture Joe mhm. Biden. Mhm. d'autant plus que y a eu d'anciens présidents euh, ay ay anciens présidents États-Unis yu yu yu fas yéene teew. Euh, ci ci boobu rek investiture mais Donald Trump après. après après bu demee. Mhm. loolu mooy mhm. la grande question. parce que mhm. moom itam yor na ay dossiers ay dossiers yi nga xam te ni war ko ci toppee. bu baax ci moom. parce que va véritablement voilà am na am ay njaaxum yu mu jot a def aux États-Unis très bien merci beaucoup euh, Mouhamed lii moo doon nag commentaire euh, yi gën a fës euh, ci li nga xamante ni moo di journal bi ñu leen digteel sànq wante faw ñu dem rek daal di jëli li nga xamante ni moo di revue des titres en wolof ñu di ci ànd ak El Hadji Mansour léegi lay 7h38 fi mu ne ba tey yéen a ngi si Zik FM ak Sen TV bu dee yéen ngi ñuy seetaan waaye di ñuy déglu dañuy dem directement rek ànd ki nga xamante ni euh, moo di euh, El Hadji Mansour Diop pour revue des titres yi naa la El Hadji. maa ngi lay euh, nuyu Adja Yacine maa ngi nuyu Siré Ibrahim ak Mohamed Diop na ngeen defal sedd bi. ñoo ngi nii. tubarkalla maa lay. jàmm rek jàmm rek tubarkalla. aywa ñu jëkkanteeg mi ne di kon ñu commencé ko ci la tribune bi nga xam ni nee na Abdoulaye moom jamono ji mbas mi mu ngi koy seet ca ca Macky Euh, foofee la koy seet si nga xamante ni bii mooy PDS itam moom àndul ci expert yi nga xam ni ñoo war a def euh, audit fichier bi nga xam ni libéraux yi di ñuy euh, sàkku saa su nekk mooy opposition bi am ci teewaay bu dëggoo dëggu ci biir audit boobee ñuy def ci fichier électoral bi. Mm-hmm. yéen kaay bi itam wax na ci ñuy jàppale njiital Horizon Sans Frontières daa ni taw bari na lool jamono ji tembe xam ngeen ni Boubacar Seye fanaan na guddeem gi yëkk ci ci kaso bi ci la ñu koy ci la ñu koy tuumaal ni dañu ko ne dañ ko di fàmmee. yéenekaay bi di la Soleil moom dellu si waat ci euh, état d'urgence ak euh, loi beeg euh, ni nga xamante ni noonu la que war a gën a dooleele ak itam ni mu entré en vigueur maanaam ni ko saxalee démb. Sénégal mu daal di jëfandikoo nag li nga xam ni moom mooy wàllu dooleem ci jàkkaarlook li ñuy wax catastrophe naturelle ak sanitaire gouvernement bi nag daal di. woo ñi nga xam ne ñoo ko teewal ci gox-goxaat yi ak askan wi ñu respecté li nga xam ni moom la ñu ko teewal ci gox-goxaat yi jël comme ay dogal ma nga ñuy fàttaliwaale itam sax moom euh, yéenekaay boobu di Le Soleil nii euh, li mu euh, fukki nit ñoo faatu ni ki démb ndax ndax Covid 19. Mm. waaw mu ngi mu ngi bëri de. Mm. loolu de la ñu annoncé nee nañu daal mm. ñooñu ñoo faatu. nee nañu mu ngi dund mu ngi ci jàmm jaare saw moom la yéenekaay bi. alhamdulilah di la critique nee nañu mu ngi dund mu ngi ci jàmm. alhamdulilah hmm? loolu ñu wax ku ñu noonu. Euh, critique. waaw critique daal nee na mu ngi dund te it mu ngi si jàmm. Mhm. alhamdulilah. Mm. mu ngi wax itam ci euh, li nga xam ni mooy ñi nekk di faj Covid 19 dañoo sonn. physiquement dañoo sonn psychologiquement dañoo sonn financièrement dañoo sonn ci yëpp yéen kay vraiment sonn nag vraiment euh, psychologiquement parce que tamit quoi qu'on puisse ah, bi jàppale parce que koo xam da ngay tax say bakkan taf say loxo sol loo xam da ngaa mel ne maak bu ñu ëpp nga nekk ci biir rek diwulu wulu nii c'est pas c'est pas doy na waar lool ah mu ni am na ñaar fukk benn ñoo xam ne faatu nañu ci quarante huit heures ndax covid 19 xam nga itam loolu xaw na xaw na xaw na doy waar donc xaw na doy waar. yéen kaay bi dellu soit li nga xam ni mooy benn coup fatal ci entreprise industrielle euh, ci wàllu Sénélec am na yéen kaay yu ko gën a faram-fàccee muy Bijou Mballo bi ne ci diggante directeur général bu Sénélec ak kër ga nañ ci dellu soit ci biir ndax am na ñu ko gën a euh, yaatal ci biir euh, yéen kaay yi. alors ñu wax itam ci li nga xam ni mooy kenn koo xam da doon liggéey ci imprimerie benn imprimeur bu am ñaar ñeent fukki at ak juróom-ñeent. moo faatu démb ci biis. ci biis tata bi mi ngi noonu. daanu li ñuy waxtaanee boobu voilà loolu loolu daal xaw na mm. xaw na xaw na doy waa wax na itam fële ni Diary Sow a parle à la police police française xëy na kon mu ngi dund yéen kaay bi itam euh, ba tey muy réew mi quotidien wax na ci état d'urgence boo xoolee daanaka ci fi situation yi toll ak ni ñu ko téye nii li ñuy faral di wax naan gestion catastrophe naturelle ak sanitaire waaye Sénégalais yi daal daa mel ni yëguñu état d'urgence bi daal si mm. seen i ay seen ay doxalin euh, ñu ñëw ci direct news alors moom muy wax ci liggéeykat yi nga xam ni ñoo nekk ci société Dakar Dem Dikk de société Senelec ngeen baal ma. Mhm. liggéeykat yi jamono ji tem mais procès daal la ñu defal seen DG ndax dañu koy woowee amul yaakaar. <laughs> Badou. waaw moom moom bopp kër ga mu jiite moom fi ne amatuñu yaakaar. amatuñu benn yaakaar ndax daal doy na waa ndax la mu fa créé fukk ñeent ci ay directeur principaux ak ñaar fukk ak juróom ci ay directeurs yoo xam ci ay unité ci biir Senelec gestion boo xam dafa lëndëm lool muy gestion ressources humaines bi. ak itam euh, gouvernance bu xaw a bu bu xam dafa dafa naj kër ga da koo xoj ba nga xam ne mënatul a mënatul a bouger moom li ko tuumaal bari na ak ay ak ay yeneen compte yoo xam ne kenn xamul euh, fan la jëm ni ki itam rupture enveloppe yi nga xamante ni bii moo doon sabab ñu am combustible maanaam am bi nga xam moom la ñuy doxee donc mënut a ñàkk fi nekk nii ñu ñu ñu taxaw leen parce que lekk mu ngi ci cooxe gu méttee méttee métti daanaka daal amul yaakaar daal moom Euh, noonu lañ koy woowee ñi mu bokkal euh, kër ga ndax lii lépp ñu énuméré juróom-benn yëf yoo xam moom lañ ko tuumaal ku ñu dénk lu toll Senelec nga yóbbu ko ci situation bi moom ñu nga jiite amatuñ ci yow ah, yaakaar masama ak ñun ñuy consommé. taxaw def li def si seetlu dina doon lu baax. moom nañu ko nañu ko xoolaat de boo daan dem boo daan dem ñetti fan ak cinq moom ñaari fan dong lay dem amul amul yaakaar fexeel ñu am ci yow yaakaar yow tamit nag sérieusement <laughs> euh, kii moom Mamadou Lamine Diallo mooy joxe xalaatam ci Abdoulaye Diouf Sarr. Hmm. bu fekkee dafa échoué bu fekkee yëf yi situation nii la demee ak Covid 19 ci cooxe gi ci am ak kaay ni mu yokkoo euh, ak ñàkk mën a jël en charge ñi nga xam dañoo tawat ci fi ñu leen ko war a jëlee. Mhm. donc dee wala ni moom dafa échec. kon euh, mhm. na na xool beneen doxalin. Mhm. donc ñu wax ci maa ngi woon ci ban yéene kee laa nekkoon Dakar Times wala eh, Direct News. Yacine dama dimale yow tamit. ay ca demal Dakar Times Dakar Times laa nekk. jàkkaarloog. Antoine ñu ngi wax ci gaz bi nga xamante ni bii moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy senn fële mooy peer ci euh, côté Taïba ak Mboro ak li ko seq. Mhm. nga xam ni Indien yi ak seen ay installation mu ngi indi ñàkk kaaraange sabab na ministre de l' intérieur envoyé fa moom Antoine Diome benn délégation bu mag parce que nee na ñu lu toll ci cent cinquante mètres. Euh, mettre kib yoo xamante ne ay produits chimique la yoo xam ne chaque jour dañu koy sotti foofu ci àll bi. Mhm. di ko sotti wàllu ci géej gi. ñu kenn def ko nag wala ñu jiitaluñ ci kenn ci ñu ko tuumaal lu dul directeur bu ICS Alassane Diallo. Mhm. moo tax am na benn association SOS Mboro ñoom ñoo jëkk alerté kilifa yi fii ci réew mi ak bitim réew ngir ñu taxaw leen ndax xeetu tawat yi nga xam ne mu ngi fay am jamono ji tembe ay der yu am ay picc. ay asthme ay biir daw ak xeetu tawat yoo xam ni yëpp produit chimique bi moom moo koy indi moo mhm. tax nag ministre bi daa mel dégg na ko parce que yabal na fa benn délégation boo xam day dem saytu ji la fa am bala fa musiba bu ga di amaat ñu koy wax Ngadiaga 2 Ngadiaga googee sax am na benn yenekaay bu ñuy wax ni seen teen ndox ba ñu fa defoon pour di ko faye gaz yi ak yooyu gendarme yi nekk fa itam di sécuriser. ak yooyu. Mhm. am na benn gendarme bu daanu benn teen. Mhm. ndeysaan yal na ko yàlla yërëm ba daa mujj sax des ca ca ca teen ba. Mhm. Euh, lu doy waa xaaral ma jëli l'observateur. alors l'Obs moom mu ngi wax ci wàllu wàllu politique ak fi yëf yi toll les partis politiques en danger moom xaw naa doy waa hmm? bi ci pouvoir moom nekkul ci danger moom. parti politique en danger. waaw bi ci pouvoir bi moom nekkul ci danger moom. xam ah. naa ni moom. kon yan ñoo nekk ci danger nag fi mu ne ah, nii. gisoo ñetti photo yi mu wane. gis nañ fi Sonko de ah? gis fi Idrissa Seck ah. sax moom ah Pastef réew mi AFP ak Karim en tout cas en tout cas en tout cas ki nekk ci kawam nekkul ci danger moom hmm? léegi nag comme yéen yéen parti ñoo nekk ci danger parce que euh, euh, ci ci parce que dafa dafa dafa nouvelle politique hmm. de confidentialité de WhatsApp loolu moom lu muy tekki vilipendente yeeg weejente yeeg jiw yi ñuy feeñee ak ay bone prix bac yooyu yëpp xam naa ne mu ci biir. Mhm. waaw bu ñu bëggee gérer lépp ci wàllu kii moom bari na. Ah, de confidentialité ci bëgg a gérer parti bàyyam ci Qatar. yëpp ay WhatsApp mais nouvelle euh, politique de confidentialité bu WhatsApp boobu WhatsApp dafa indi benn euh, xeet bu bees wala doxalin bu bees xam nga WhatsApp Facebook moo ko moom. waaw léegi li ñu bëgg mooy la nga doon waxtaanee ci whatsapp les euh, euh, groupe euh, politiques yi ndax gis nañu fan yee passé ñu ngi doon wax na ni parti socialiste seen lépp léegi ci whatsapp lañ ko yemale et cetera léegi la nga doon waxtaanee ci whatsapp vidéo yeeg photo yeeg discussion yi yëpp mën naa dugg directement ci biir facebook maanaam donc ñëpp mën cee am accès parce que ci am accès moo waral tey ñu wax nii parti politique yi justement dañ nekk en danger parce que bu ñu waxee WhatsApp xam ne Karim fa mu nekk. fa mu nekk WhatsApp lay yónnante ak njabootam fii. Euh, xam nañu ni Sonko euh, ku xarala ci wàllug. Euh, ah, ah, internet internet ak ci digg bi leen mën voilà donc waral ñu génne ñett ñooñu mais c'est pas seulement les partis politiques mais tous les Sénégalais. waaw lui et moi mais ce ce sont tous les utilisateurs de WhatsApp ñoo xam ne ñoom ñoo nekk en danger. moo waral ñu bari ñu ngi fay jógee sax danañ ci ñëwaat alors yéen kaay bi wax na itam si Boubacar Seye ak euh, situation fi mu nekk nii ni mu xaw a ni mu xaw a compliqué parce que ñëpp ñu ngi koy jàppale. Mhm. te it nag euh, dugal nañu ko ci kaso bi mu passé fa guddeem gu njëkk alors ñu ñëw ci source A. voilà source A moom itam wax na ci euh, li nga xamante ni bii mooy wàllu auditu fichier électoral bi. dem nañu ba dëppoo ci li nga xamante ni bii xëy na mooy ñu jox ko ay étranger dernièrement la ñu ko sooga a la ñu ko soog a saxal parce que Union européenne dafa jàpp ni euh, yeex na lool gouvernement bu Sénégal dafa jàpp ni yeex na pour finalement mu dugal xaalisam ci loolu ba tax na gouvernement bi soo ko jël en charge moo tax ñi seq liggéey bi ñoom Majum Ndiaye daal di jël euh, ñi nga xamante ni ñëpp mënuñu see ñàkk ngir ñu daal di valider saxal yooyu la expert ñoo ñu continuer ci li nga xam ni moo di euh, auditu fichier électoral bi le témoin wax na ci spéculation bi nga xam ni moom moo am ci wàllu euh, protocole de Paris. Mm-hmm. waaw comme ni mu wanee nataal bi Idrissa Seck ak euh, Macky Sall. le quotidien moom itam dellu si na ci Covid 19 ak li nga xam mooy yokkute gi nga xam ni moom la ñu yokku loi bi gën a saxalaat li nga xam ni moom mooy doole Macky Sall daanaka. ci euh, jël ay dogal ngir mën a xeex li nga xam ni moo di euh, Covid 19. réew maa ngi bousculé ci wàllu gestion catastrophe crise sanitaire bi ak euh, li nga xam ni mooy saytu gi ñu war a saytu nit ñi ak seen ay mën-mën ci xeex wopp Covid 19 ni ki itam yéen kaay bi dellu soit na ci jaari sow jaari sow ba léegi ak tànn téefam ci li nga xam ni moo nekk ëllëgam hmm? mu ngi mu ngi gën di leer ndànk-ndànk de ah. Hmm. mu ngi gën di leen ndànk ndànk mais li ñu ci ëppal solo mooy ñaari euh, ja euh, yasin mhm. mooy mu ngi ci jàmm ak salaam ak salaam mhm. loolu moo ñu ci gën a intéressé yéen kaay bi itam dossier bu ñu doon xaar xaar bu nganda nganda nganda nganda démb rek ñu ko fi fàttali 94 milliards plainte Sonko bi moom daa mujj naa ni géej daanaka taxul mu am solo le populaire dellu soit na ci li nga xam ne beneen weer boo xam ne ci couvre-feu ci Dakar ak Thiès euh, Seydou Gueye ma ngay joxe explication moom porte parole bi di wax Euh, sañ-sañ bi ñu war a sukkandiku ngir jox gouverneur yi doole bu tax ñuy mën a continuer li nga xam mooy couvre-feu boobu ak itam la mu leen mën a indil ci njëriñ dellu soit na moom itam ci yéenekaay bi ak dalal xel gi ci jaari saw ak réaction bi ñu ni def na ko ak police française euh, ñu wax itam ci euh, Sud Quotidien dellu soit na ci réforme commercialisation wu mm-hmm. gerte gi mm-hmm. mu jàpp ni waaw am na ci naam waaye nag producteurs yi aussi xëy na seen ëllëg ci wàllu boobule mu yaatal li nga xam mooy njëndum gerte wante yi itam wax na ci Boubacar Seye ak guddeem gu jëkk ci kaso bi ak ñu koy ñi nga xam ne ñoo koy jàppale. donc Yacine euh, loolu mooy li yéenekaay yi xëy ci tënk tey jii voilà. Hadji Mansour xanaa ñu joxante di daje euh, si kanam rek nga ànd ak Cheikh Mantoulaye ak Birahim Touré ci journal wu